bëgg a xam Boy Niang 2 mais Boy Niang baa ngi jeex te gisaguñ la lan moo waral loolu. père man yow laaj. yow laaj man lan moo ma tëree bëri. da ngaa saf saf nag 27 27 combats laa bëri 6 défaites benn match nul benn victoire. waaw li leen tëree bëri xam nga lan di encouragé suma rak Papa Boy Djiné waaw di ko wax lamb loolu la te lamb ji passé waaw liñ ko wax la def ñun ñëpp kontaan nañ waaw waaw dëgg la waaw di wax ni suba waaw sama rak day bëre dëgg la Baye Ma Ndiaye numéro dara yàlla ko yàlla suturaal kon ne waxtaan dëgg la waaw ah, est-ce que promoteur yaa ngi lay seet promoteur yi ñu ngi may wax waaw man waaw Fallou Ndiaye mi ma doon wax ah, kii nu mu tudd dina ko mosu woon taxaw mais. mais yow xam bu neex la Ndiaye Tine Boy Niang 2. combat ah. su nekkee yaa ngi may yokkalal sama booy loxo yokkal yokkal xaalis bi. parce que loolu amul combat bu ko dàq. day raak. Boy Niang 2 day raak. Ndiaye am na supporter Boy Niang 2 am na supporter loolu amul affiche bu ko dàq Fallou Ndiaye ñaan. na nga waaw. mën naa bëre ah, nu koy lekk lam sax kii ñaan fay waaw ñooñu ñëpp garçon waaw garçon dama bëgg nga jàppale ma makkat ah. dama bëgg ma combat lii dama bëgg ma si dara nekk si seena fan sax jànguma benn sama carrière ba nga jeex si lamb taw ma si dara loolu dafa ah. man jànguma métier te billaahi wallaahi wa taala sama troisième combat ba ci laa am soxla waaw sax mënuma la baax nekk suma soxna yàlla di ma jàppale mm-hmm. may fay luyaas di lépp kon suma bëre la incha gis naa ne Makan mi ngi jàpp si làmb comme ni papaam doon jàppale papaam moo fi créé ñu fi jëlee ñoom Yékini dëgg la Makan ñëw na di créé ñoo xamante ni war nañ fi jëlee ñeneen mbër yu mag dëgg la Makan dama bëgg nga jàpp si ma am combat bu jëm déwén ma mën koo waaj comme samay morom parce que âge bi mi ngi dem te làmb du xaar kenn te war naa mën a bëre am lu ma suturloo am dara parce que bu ñu waxee te dëgg aw ma dara barke Seydina Mouhamed damay jël aw ma si dara. dëgg la te làmb sonn naa ci ku bëre waaw amoo sax turu tuub kon loolu métti na. dëgg la kon fitness sport bi uh-huh. sa cachet bu gën a mag si 11 grands combats yi boobu ñaata la. 1 million 500. loolu yokkal yokkal la woon. Euh, Jalaw bi paase. doomu Jalaw waaw. Ah, si 27 combats. grand programme 1 million 500. loolu ban promoteur la ko fayoon. Fallou Ndiaye nekk nit ku baax Fallou Ndiaye maa ngi koy nuyu au passage. baax. woon wax sama kese sax. waaw mais yow da nga nekk nit koo xam ne day dundal làmb. dëgg la loo ma laaj rek dinaa la si wax. dëgg la noonu la demee. te làmb nag. waaw dama si war a am cër. waaw si am cër. dama ko war a jël. dëgg la voilà loolu la demee. Dieye. waaw Fallou Ndiaye. Sambay Fall. Gaston Mbengue Serigne Modou promoteur yi gestu leen ma sama booy bi ah. dafa saf saf amul mbër lu mu ëppale mbër yu bëri fii Boy Niang 2 moo leen gën a baax palmarès moo leen ëpp combat bëri na ay supporters buy bëre amul amateur buy ñëw seetaan si Boy Niang 2 nga génn di am looy ñaxtu dina andi forme bu baax dina andi gàllaaj dina andi bëre dina andi safara donc ku mel noonu boo ko amee yaakaar naa ah, mu bëree 27 combat toog saison bi bara jeex amul combat je pense que loolu du yoon ñoo ngi ñaanal Boy Niang de promoteur yi ko tëgg combat ak Mor Kang Gaston Mbengue laa bëgg mu tëgg sama combat Gaston Mbengue Gaston Mbengue dégg li la booy sa doom wax makan makan sama combat tëgg ko waaw dama la ñaan nga tëggal ma làmb ma ñëw wane suma bopp dëgg la makan uh-huh. nit bu baax la chaque ma combat. amiin su ma su ma amee ku ma am baax na. dëgg la mbëri yoo xamante ni. xam ah. a gis naa Onde le Fou di la di la dëkk. non non Onde le moom boo ko demoon seet sax day bañ moom Onde le Fou moom daanee aarafaas ba léegi bëriwul. bëriwul waaw loolu waaw. te pourtant yéen ñaar seen combat neex na de. man deux mille ah. de. combat bu man bëgg naa. waaw ah, bëgg ko kenn. dëgg la man ku ñëw baax. war bu ñëw baax dëgg la waaw. Ah. ku ñëw ma def ci fulla def ci fayda def ci jom def ci maam yëpp. waaw ah, incha allah waaw xaar yàlla na. lu ma yàlla jox ma xam la ma yàlla jox. man musuma bëri làmb ju naqari. dëgg la loolu am na musuma bëri làmb ju fees. bëri naa ko six grand combat yi mu mujjee bëri yëpp dañuy tëj stade bi. xam kon war naa mën a bëre. Ah. man dama xamul lan la quoi. lan la laa xamul. li daan mënoo bëre. soo daanoo foo jëm. kon a nañ ma jàppale mu bëre. parce que sport dafa laaj. am na ñoo xamante ni sax lu ma la man ñoom Balla Gaye bi ñuy daan maa ngi bëre daan. mais lamb ay kuy mu ngi bokk baax. Ah. waaw tey gën gis tamit sax nu ma la di nga gis ñetti nit si génn wala ñeent. man yàlla def na nag sama mu wax boobu ba léegi wane wu benn yoon yaa fuf. waaw wane wu benn yoon dara. man sama carrière maa ngi koy continuer ak ngor. Ah. di ñëw di bëre di ci def fulla ak fayda di bëre ay bañu ma bëre xale ba ma bëre kenn. Ah. mais nañ ma jox combat yu baax ma bëre. a bëre dafa jot dafa jot wasaare. waaw dama war a bëre. waaw. jërëjëf ma jugee si doomu Jalaaw ba léegi. waaw boo wax bëgg maa ngi ci. boo wax mu bañ. mais nag c'est normal. man damay entraîné. waaw chaque jour lu mu sama kër laay fanaan. waaw waaw ko dégg sa gestu ko nag mu am combat ku mu nee na ku mu am baax na Mor Kanka Ndiaye Tine Onde le Fou ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay adversaire am ñoom ma moo njëkk tudd Boy Niang 2 avant Boy Niang 2 di tuddee boppam tey ba jël coow li kii moo njëkk tudd Boy Niang 2 mag bi kii mooy Boy Niang 2 numéro 2 kii moo njëkk tuddee boppam Boy Niang ma ma ma wax si Boy Niang waaw man Boy Niang damaa bëre ba tuddee ko Amen.